président amoon na accalmé bi mu defee sa déclaration du 3 juillet euh, ñëpp sargal ko les gens étaient contents euh, après il y a un processus judiciaire qui s'est enclenché avec l'arrestation de de de de Ousmane Sonko euh, barkaate démb waa Yewwi Askan Wi euh, Habib Sy Maïmouna Bousso Aïda Mbodj et tant d'autres dañoo def délégation ñu dem Touba seeti ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour mu intercéder yàlla na fi yàgg te wër euh, Mbacké pour mu intercéder euh, auprès du président Macky Sall pour que ñu libere Ousmane Sonko pour que mu wax Ousmane Sonko mu bàyyi grève de la grève de la faim bi euh, ngir indi solution tey ñu foog ne ndax xëy na euh, l'État va lever le pied un peu peut-être que l'État va alléger démb ñu gis une charge une nouvelle offensive euh, une un, un, un groupe d'avocats de l'État euh, bu euh, lancer euh, une procédure euh, constituée au parti civil parce que des biens sociaux importants vitaux ont été détruits des biens privés on été ont été détruits l'image du Sénégal a été chahutée ñu engagé une nouvelle procédure euh, ensuite euh, il y a les intellectuels ils ont signé une tribune 142 intellectuels dañoo signé une tribune di demander la libération de Ousmane Sonko pourquoi est-ce que l'État reste sourd pourquoi est-ce que l'État reste sourd euh, à ces à ces appels d'abord maa dab dagoon nuyu sëñ bi sëñ Muntaxa di ko euh, wàcc wàccaayam di ko di ko nuyu di ko sant si taxawaay bu mu taxaw euh, Sénégal ak euh, umma islamique bi yëpp di wax ni loo wax si ñaari mbir la nanga wax si grève de la faim bu ñu ñëlee bëggoon pour monsieur Ousmane Sonko bay ko te mu nekk loo xamante ni euh, man tam rafetlu ko parce que euh, kenn ñaanalul sa morom même sa adversaire politique nekk euh, am ay tolof dem si nekk si si loxo loxo yoon mais loolu nattu yàlla la day da mën na dal ku nekk surtout ñun ñuy def politique nii sa nattu suñu borom mën na mën na dal si si ku nekk euh, loolu seen àdduna la euh, di wax ni euh, man mën naa nangu partisan om yi ñuy dem pour jàppale ko di ko di ko di dem pour ñu yedd ko mais grève de la faim même na loolu si jullit dafa nekk lu doy waar parce que euh, bakkan dafa di yàlla mu nekk nu ñuy wax don jële ko ba dund bakkan don don de Dieu la pour man dafa sacré euh, trop ba nga xamante ni lépp loo xam ni mën na ko mën na indi lu koy loo loo xam ne mën nga si ñàkk si bakkan mën nga si ñàkk sa bakkan euh, kenn waru ko décider def ko si méttit walla loo mënti jël daal que te teg nañ la ko grève de la faim pour moi euh, te maa ngi yaakaar ni euh, dina am dina am ressaisissement moom mu muy Ousmane sonk mu mën a bàyyi loolu parce que vraiment day c'est négation de la vie humaine seulement et loolu man euh, rafetlu ma ko te maa ngi koy yedd ñaan ñaan en tout cas mu bàyyi loolu parce que fraternellement fraternellement maa ngi koy ñaan mu bàyyi ko parce que c'est une négation de la de la vie humaine man loolu mun ma ko rafetlu Euh, ñaareel bi wax nga ko cette vie humaine